bienvenue dal leen ak jàmm ci docteur Abdoulaye Diallo le médecin le plus professionnel ma ne ki mooy Abdoulaye Diallo le mythe de sa génération ki nga xam ne moo mën lool ci saafara jàngoro yu ci mel ni colopathie hémorroïde cystite impuissance sexuelle diabète hépatite B arthrose polyarthrite rhumatoïde nerf sciatique hernie discale ak hernie inguinale ulcère fibrome kyste ba ci stérilité lépp loo ci jaaxal seet si docteur Abdoulaye Diallo mi amee rab def def nekk ci yow cat daf la sonal da nga bëgg a ubbiku bëgg a am alal ju gaaw te jaar ci yoon seet sil docteur Abdoulaye Diallo mu nga ca Petit Mbao dana disponible li ko dalee samedi dimanche lundi bu dee Touba nag mardi après midi bi woo ko gaaw ci 77 203 08 04 wala nga def 77 959 28 09 docteur Abdoulaye Diallo mani la phénomène baa ngi nii ci wàllu santé lu la jaaxal ci say tawat dawal seeti jikko docteur Abdoulaye Diallo Diallo, le mythe de sa génération. ganuk Sénégal gi niki démb lañu ko doon génte ca jam ñaayu jël tur wi jébbal ko Abdoulaye Wade mi fi nekkoon jiital réew mi la xewoon démb ci stade bu jam ñaajo muy stade olympique bu Abdoulaye Wade ci mbirum festivité fête ba fa amoon ci teewaayu ay njiitu réew yoo xam ne fekk si nañu seen nawle bii di Macky sàll mi jiite réewum Sénégal waaye tamit nag ci ay artistes ya ñu fa gis festival ga ñu fa amal spectacle yu doy ya fa am terewul am na lu ñuul ci soow mi mbirum stade ba démb am na ci ñoo xam ne ci askan bi ñàkkoon a mën a dugg ci biir stade bi taxoon na ñu aw sàññ bay jël ay xeer di ko sànni ci ginnaaw stade bi di jëflante ak ñi nga xam ne ñoo di force de l'ordre yi bu weesoo loolu itam am na ca ñenn ci artistes yi yoo xam ne jëlee nañ ca aw sànni ndax ba léegi yéeguñu joué li nga xam ne moom la ñu waajaloon ngir bis boobule bokk ci ñooñu la Wally Ballago Seck ñu bari jàpp ne dañu koo daal di sabotage la ko ñëpp di tudde waa kër Ndiaga Ndour yi ñoo ko jëf jëf gi ni mel waa kër Youssou Ndour ñoo saboté kii di Wally ku ci nekk ak la nga cey wax kenn ku ci nekk ak na nga cey waxe Wally Ballago Seck ñëpp nee nañu bi mu waree yéeg lañu daal di jaawale aw ko beneen son boo xam ne moomu ko mu taxaw ci kaw seen ba di patiente patiente na lu yàgg tegaluñ ko aw sonam ci lañ jël beneen kële jébbal ko ñi nga xam ne ñoo nekkoon ko moom ak i rakkam moom ak i magam moom ak i baayam ci musique bi ñoo ko àndoon fas yéene woon njukkal kii di président Macky Sall njukkal ci itam kii di le roi di mbalax di Youssou Madjiguène Ndour far yëf ya am jur jàng gu ca xew benn ku ca nekk ak na nga cay waxee ku ci mel ni Adamo génn na addu ci yëf yi ni mel nee na yëf yi ab sabotage la te itamit nag lu ci ëpp xam nañ ci lu bare bare am na ci tur yoo xam ne mën nañ ko ciy sita waaye lii lañ ciy waxagum ba subaak jàmm danañ ci génn indi ci ay i leeral moom it di Adamo nee na fas yéene nañu topp yëf yi ba mu sës rëkk ndaxte Wally Ballago Seck dañ koo bëgg a suul ker kenn mënu koo suul ñu baree bare loolee la ñu jàpp jamono jile waaye ak nu mën a xew ñi ëpp ci liñ wax li gën not ci li gaay yi wax waa kër Youssou Ndour yi lañu ko daal di coulé la ñu yekk mbir mi moom la ñu mujjee yéegal te itamit nag moom la ñu a saboté ci yëf yi am na ci yeneen artistes yoo xam ne waroon nañu yéeg joué ba tey kenn déggu leen fa ba tey kenn déggul seen son ñu teg ko ba tey yéeguñu ci kaw seen ba daal di def seen prestation bi nga xam ne noonee la waree ku ci mel Queen Biz moom yéeg na toj na chaîne bi ci kaw seen ba mu yéegoon dé moom Queen Biz waneeti na boppam ci stade bu jam ñaajo bu Abdoulaye Wade Queen Biz spectacle ba mu fa def ba muy wàcc ci la gisee benn fansam bu jigéen boo xam ne fansa ba da doon jooy yëkkat ngir Queen Biz ci la Queen Biz tamit xolam potooy mu ànd ak moom di jooy te naan jëlal leen ma numérom naan ko séeri noppil boo noppiwul damay ànd ak yow di jooy moom it di Queen Biz ginnaaw ba mu wàccee ci kaw seen ba rafetlu na jëf ji nga xamee noonu la ñu ko jëfee rafetlu na feet bi waaye tamit nag di ñaan yàlla feet bi bañ fee di Kiwin Bis gis nañ ko ak joueur boo xam ne yàgg nañu ñoom ñaar muy Asamoah Gyan Kiwin Bis génn na ca Lions ya léegi nag ma nga ca ñi nga xam ne ñoo di Ghanéen ya moom it di Kiwin Bis moom ak Asamoah gis nañu leen ci benn vidéo boo xam ne ña ngay àndandoo di fecc ci wayam bi nga xam ne moom la jagleel Gaynde Njaay waaye leen ko ngir jukkal leen waaye leen ko dooleel leen waaye leen ko ci jamonoy Coupe d'Afrique gi ñu génn bañ doon amal ca Cameroun Youssou Ndour daal di nay toj stade ba moom itam loolu waa di mbalax na boppam démb waaye ba nga xam ne way na ko fa ay mbër lañu fii ci Sénégal benn par benn la doon tëgg seen i bàkk ñoom ñooñu nga xam ne ay mbër lañu ku ci mel ne Eumeu Sène Balla Gaye numéro 2 Bombardier Modou Lo ba ci sax Gris Bordeaux bépp mbër Youssou Ndour delloo la na njukkal ngir mën leen boole ci xew mi ñoom itamit nag Youssou Ndour ma ñu dénkoon mbirum xew mi ci mbirum culture bi daal dina koy matale ba noppi itam yéegal ñëpp yéeg moom itam def lam war a def seen nañu Marème Faye Sall ci kaw tribune ba moom ak président Macky Sall ñuy yëngatu ci ay pas de yoo xam ne doon nañ ko amal ci way tànk ñuy daal di wale ak a fi nga xam ne foofu la toogoon ñoom ñaar président de la démb ginnaaw inauguration ba daal dina yëkkati ay kàddoom def benn discours boo xam ne discours ba la ci gën a not ci li nit ñi gën a jàpp moom moo di ne dafa sant gouvernement bi ne leen nag li des léegi mooy entretien wu stade bi maanaam ñu sàmm stade bi ginnaaw bi mu ci defee ay koppar yu baree bari li ci des mooy nañu ko sàmm te koo yàq mu da ngay a biir mbooloo mi bu muy présenté soxnaam si di Marème Faye Sall daf ko daal di tudd ne ko madame la première dame chère Marème ñëpp daal di yuuxaloo mu waaw waaw ci la bokk mu daal koy delloo njukkal moom mi tuddee ñëpp li nga xam ne moom la ko njiital réew mi defal muy li nga xam ne delloo njukkal gamu ko delloo njukkal Amina Poté delloo na ay baatam ki nga xam ne moo di Kouthia moom it Amina Poté ci benn interview boo xam ne xamal na ko moom kott moo toog daal di jàkkaarloog écran télévision bi di wax ak ñi nga xam ne jàpp nañu ne ñoom moom la ñuy waxal ku ci mel ni ku Kouthia ak ay détracteur am naa Poté nee na benn ab jeeg du ma yónni te man nag du ma utiliser télé ngir nekk star star amul ci kaw suuf benn star la ñu xam ne moo existe mooy suñu borom subhanahu wa taala moom kott mooy star te man nag du ma yëg ni maa ngi ci télé su ma nekkee ci télé saa bu ma ko yëgee damay jàpp ne kon maa gën ñëpp maa féete kaw ñëpp te loolee man Amina Poté nekkuma ci doxuma ci ci lenn ñàkk fayda damay sóoraale samay doom damay jàppale samay doom ba tax na am na ci yoo xam ne su ma ci naree dugg ñoom laa ciy bàyyi xel du fi nekk sax di xeexantoo ak di wax loo xam ne wax ju ñàkk fayda la mbaam may dugg ci lu ñàkk fayda mbaa ma yëg sama bopp mbaa ma sama bopp fu ma àggul moom mi di Amina Poté na ni kuy tontu ay gaayam benn par benn ba tey wax ja mun nagu la fay ci diggam ak Kouthia ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne coow la ma nga ci seen biir ma dem ci ministère de la santé àddooti ci kàddu ya ma daan àddoo ni ma ko baaxoo waxee ak yéen mbaas maa ngi wéy di des ci suñu réew nañu sàlloo di wéy ci mesure barrière yi takk suñuy masque